Euh, ñu toog ceeg jëmm ju màgg nag ci yoon wi ju tedd ju bari xam-xam lool macha allah bokk ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëriñ Moustapha Seck Baye Fall taalibe sëriñ Amdi Khady Fall ñu fas yéene jox kaddu gi nag mu yëkkati ay kaddu ci turu maanaam l'islam bépp rek ndax moom mate na ko ci digganteem ak sëriñ njaga euh, wàllu témoignage maam fàttaliku ak digganteem ak sëñ Cheikh Fall Baye góor mi nga xam ne moo ko tarbiya ak euh, liggéey bi nga xam ne moom la doon liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Ibra ci yoon wi xam naa dañuy jox sëñ Moustapha rek mu indil ñu ci ay témoignages ak i euh, fàttaliku kon sëñ Moustapha bisimilah. asubillahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim wa man bihaa daxala fi amrin fala yakun xaa'iban wala munsafila fa innaka nasir mahawta ay bi innaka al basir summa salaatu alal muxtaari min mudarin xayril bariyati min baakin lil Moustapha kulliyati kulla sana matan salatan wa hababi asana ya rabbana habli bi aqil kawsari yu mel hayati wa ujuri kasari amin asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Ndiaga day li ñu war a mën seere ci moom bari na taalibe gi ak woyaf gi akub liggéeyam ak ànd gi mu ànd ko mat a àndal muy sëñ Cheikh Fall Baye góor ñëpp nag ci yàlla lañu jëm nit nag bala ñu koo laxas di ko yóbbu ca yàlla war naa laxasul boppam dem ci yàlla sa njaga moom daa laxasu woon jëm ca yàlla ba tey nag doo ko laxas yit yàlla waaye li ko mayan loola mooy ànd ak mat àndal aju ci ko yegg ba demee ci masaalik ko baax ki borom Tuubaa Xaadimu Rasuul mu nga cee wax naan faman tawassala bi waasilin wasal tawa tawassala bi ak si in fasal ku aju ci ko yegg di nga yegg waaye ko aju ci ko yëgul doo yegg sëñ daga ne suñ Seex Fall Baay góor moom mu aju woon daa yegg ba noppi yeggale ko kuréel bii mu taxawalan tuddi ko sulumul wusool sëriñ Tuubaa da doon mag ñi saxaaba yi ñooy seen baay ci lislaam sëñ njagaatam jël sëriñ Tuubaa def ko muy baayam ci lislaam sëriñ Tuubaa dafa bind ab téere ne xaasa sulumul wusool fii sanaayi àla nabi rasul muy alaaman kerkeraan gu ñu wóoloo ngi nii gu jëm ca yàlla te yegg bu ñu wéer ci tagg Muhammad Rasulullah salaatu salaam sañ daga nag ne daggat kerkeraan gu ñu wóolu googi mu jële ko ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa jële ko ci liggéeyub maam Cheikh Ibrahima Fall jële ko ci kër Sëriñ Moustapha Fall jële ko ci jëwriñam ji yegg jëri Sëriñ Cheikh Fall bàyyib góor ne ko ca tegg ne sama kerkeraan gii gu ma wóolu la ndax Sëriñ Cheikh Fall bàyyib góor ma ko téyel Sëriñ Moustapha Fall téyel ko Cheikh ko ko kerkeraan gu ñu wóoloo ngi moom sañ njaga feesa naa ni ala ni mbi rasul di waxtaani baaxu sëñ Tuubaa di waxtaani baaxu maam Seeru Faal di waxtaani baaxu mag ñi waxtaani baaxu saaba ya di waxtaani baaxu Seydi Saddaat Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi nga xam te ne ñoom la ñu àndalan loolu mooy sulumul wasul feesa naa ala ni mbi rasul mu jël sulumul wasul bii def ko muy doomi sulumul wasul sëñ Tuubaa ja sa sëñ Cheikh Lo sama sama sama sëriñ ba bi ma jàngal sëñ Cheikh Lo mi wàccub liggéey barki démb di xalifa loo yéen sëñ Cheikh Faat mu bay wal yi fàng ma jàngal araf daan daana wax ne Moustapha man ko faal mënuma sëriñ Touba lu mu tudde doom day jël baatunu bàjjen ba def ko ca doom ja kon nag baatinu bàjjen bu mu ko tuddee muy sulu mu wusul bu suñ tubaab bi yal nañ yal na wàcc ci doomam ji ko sa njëgu jóg tudde muy sulu mu wusul fi sana àla nabi kon kon taxawaay baa ngoog sëñ njaga daal moom dama ni diggam ak sëñ Cheikh Fall Baye góor la sëñ Mbaye Jaxate waxan loolu day am jeexital ndax nit ñu baax ñi ñooy doon ñu baax ñi sëñ bay danoon sëñ Mbaye Jaxate danoon sëriñ bi damaa ŋàbb dama ŋàbb ŋaaw ak man dal man fu raw xalam rawum xel ma raw xel raw xalam jiitu bëri yawan sëñ Cheikh Baye Golo jeg defan Jóob ndax ndax nitu Ndakaaru la de war a woom moom Ndakaaru ci askanu njóobeen war ko moom ci askanu ndey Ndakaaru gi nekk mu jëlee ko ci yax bu rëy boo bii sëñ Cheikh góor ñu war ko waxal mu ne si mu ne mu ne Njaga ni bu kenn waxal naa waxal Cheikh Rafaan ngir am ci ngërëmul yàlla kon sëñ Cheikh Fall góor da ko ŋàbb naaw ak moom naaw moom dalak moom nag fa xalam askan wi mu bokk ñëpp xam kenn jëpp ci Ndiaga Diop waaye askan Cheikh Fall ko nekk xam na kan mooy seen Ndiaga Diop waaye nag ne nu ko xamee nag li askan wi rëy ab yàq ba doon askanu njóobeen dong nag kër kër Cheikh Fall duñ ko xamee nii ngërëm la lam fa sàkkoo tax booleeg lii kon ki mu àndal di feeñal Cheikh Fall te sëñ Cheikh Baye góor dër mosu koo ñor loolu ak taalibe te la mu waxoon ci ak taalibe mu mën ci sëñ Ndiaga nu mën ko ci seere sëñ Cheikh Fall Baye góor danoon ak taalibe ab doom la yar ak teggin mooy saal ba daal ne doom bu amul ab saal nag bu ko jiitu sax te sëñ Ndiaga Diop aman na yar aman na teggin moo tax ab saalam sax na moo waral bisi bi yal na ko yàlla feyal di saa borom dooli ko ngërëmu Cheikh te defal nu ko jërëjëm kon nag kon nag euh, su la mul wusul bi mu sos na ngeen ko toppatoo bu baax na ko ko sàmmal bu baax incha